gis nañu ne li ñu inauguré wala ñu teg xeer wu njëkk ci ay commissariat de police bëri na naam ñu bëri dañ koy rafetlu waaye li ñu ci jaaxal mooy kaaraange gi moom day gën di euh, euh, doy waar daanaka ay nit yu ñuy fàtt ak yu ñuy agressé mu ngi fi ne xuus. lu am solo la question bu am solo parce que euh, li koy sabab. Mm. defe naa ni xam nga dafa am ñaar yoo xam ne ñoo war a ànd. Mm. muy kii def enquête. di def intervention di teg loxo. muy mm-hmm. police ak gendarmerie. Mm-hmm. seen démarche dafa war a riim ak démarche bu justice. Mm-hmm. parce que Samba Boy bi ñu jàpp tey balaa am trois mois mu génnaat. day continuer def li mu doon def. kooku policier bi koy jàpp di xeex moom. mënut a fexe ba jàkkaarloog moom. parce que toujours mu ngi initier yu bon. Euh, sans compte ñi nga xam dañuy raw parce que bul fàttali euh, band yi def yooyu ñàkk kaaraange gi ñiy rayante. Euh, am na ci yoo xam ne police mën ci def intervention. Mhm. mais yi police man bu fàttali ñoom itam ay jeunes lañu comme policiers yi comme gendarme yi. Mhm. léegi nag justice moo war a diisal ay daanam. Mhm. ci mën a ràññee ñi nga xam ni euh, ay defkat defkat lañ. buñ la jàppee tey tëj la trois mois. jàppaat la nga am 6 mois jàppaat la nga am 1 an dañuy xam ne yow danger public nga. Mm-hmm. donc bu ñu la jàppaatee sanction bi war naa gën a diis. Mm-hmm. bu ñu ma wax ay wàllu droit de l'homme mm-hmm. parce que ki ñuy ki kenn kooku noonu nga xam ni. moom mooy semer le terreur sonal askan bi mais kenn kooku ñi muy ñi muy indil musiba. di leen sonal di leen agressé di leen sàcc mais ñooñu itam ay nit la ñu yu am ay droit nekk ci jàmm. kon justice faw bu ñu bëggee euh, kaaraange gi mën a mën a yokku banditisme mën a wàññeeku. Mm -hmm. faaw justice collaborer dëggantaan ak way takk der yi nga xam ne ñooy def arrestation yi mais boo defee arrestation boolee sa PV ak ci audition yi ak yëpp joxe ko yoon. yoon déglu ko xam ni kii nii yàgg naa def njom bi dugg na du duggaat na kaso xamante ne sax ak garde pénitentiaire mm. mais sa waaye nga daan ko benn petit trois mois mais bu génnee day continuer def la ma doon def mm. fekkaat fa ñeneen ñu yokkuwaat loolu day tax ñàkk kaaraange gi di gën a yokku mm. sans compter nag way takk der yi ñu ngi ci kaw tali bi ñu ngi ñu ngi def intervention ci sàcc yi ñu ngi def intervention ci manifestation yi ñu ngi def lu ñu mën mais bu ñu continuer nag xëy na di def ay commissariat de proximité foofu itam askan wi am na rôle bu mu ci am muy fawuñu ñu collaborer ak way takk der yi benn commi benn benn commandant boo xam ne kilifa la daf ma woo di jooytu nga xam ne kii li mu wax dugg na ci xolam mm-hmm. benn samba buy bu sonal waa quartier ba sonal waa dëkk ba ñu dàq ko benn jour ci benn opération mais nit ñi mu doon sonal nit ñi nga xam ni ñoom la waa ji di sàcc mais nit ñooñu ñoo def ay pexe pour rawale waa ji parce que doomu gox ba gendarme yi dawa doo ba sonn xam nga ñooñu ëllëg lu leen dal nañu ko assumer parce que ñoom ñoo collaboré wul ay am mooy takk der yi mm-hmm. Mohamed Kalista production Haj Mansour euh, Time for Africa di ab euh, centre Yenenga euh, daal nañuy dalal ak centre Yenenga daal nañuy dalal ni ki tey ci suba délégation entrepreneur entrepreneuriat rapide womb jigéen ñi ak ndaw ñi mu jëm ci wàllug financement industrie culturelle ak créative financement yooyu bénéficiaires yi nga xam ne jot nañu si ñoom rafetlu nañu ko bu baax a baax ñu teewlu ci Ndeye Khady Diouf ak Abdou Malick Thioum ñoo ñu fa teewaloon. financement yi muy jagleel industrie culturelle yi délégation générale bi ñu jagleel entrepreneuriat rapide demoon na nemmeeku ñenn ci ñu jotoon ci ay financement parce muy koppar yu mën a tax ñu yaatal wala tàmbali seen ay projet jàppale gi ñu jàppale boog daanaka fës na ci lool daanaka Euh, li ñu fi am ça répond au standard international. mooy door a ñëw daanaka fekkuma fi woon ay machines yu bari mais ñëwee après ci la machines yi daal di ñëw yombal na liggéey bi tax na tamit ñu gën a euh, jëm ci kanam comme ni mu ko waxee dégg ngeen ngeen di waxtaan. lii DER dugal loxoom ci suñu liggéey moo tax tey mu mën a nekk moo tax tey ñu am ay ndaw yi nga xamante ne dañ fiy xëysee chaque jour moo tax it ñu am ay produits yi nga xamante ni euh, public sénégalais bi mu ngi koy seetaan ak série yaay 2.0 ndax tey DER dafa dugal loxoom. Euh, tax ñu mën a di fay ay doomu aadama waaye it tax ñu mën a jënd matériel bu ñu yombalal suñu liggéey saa su nekk. saytu gi DER di amal ci wàllu woowu doon lu leen neex ndax day gën a firndeel solos projet yu ñu taxawal. day tax ñu gën a xam lan moo tax ñuy jóg parce que tey boo bëggee nit gën la wóolu danga koy jox ay garantie garantie mooy euh, na mu bëggee nga tëral liggéey bi nga tëralee ko noonu loolu day tax bis boo leen toogaatee nga koy laaj leneen da ciy sawar. ko secteur yi yëngu ci wàllu culture ak ñu àddu wax ci yenn ci ay quotidien sénégalais yi ñuy détourné fan yi ay titre yu ñuy modifié ci ay réseaux sociaux ak seen i continué sax fa floré metti bu baax a baax coordination des associations de presse ginnaaw bañ ci amee rek euh, jana koy tasaru xibaar yi kap ma ngay ñaawlu itam euh, sabotage gi ñu nemmeeku ci titres yi ak harcèlement sax faf yi ñuy def euh, ci léeg-léeg journaliste yi kap nag fas yéene na saisir Facebook ngir mën a ko tëj compte ñi nga xam ne ñoo di Zimbabwe yuy def euh, jëf ju ni mel euh, ñu teewlu ci euh, Tidiane Diallo ma teewoon seen ndaje ma saboté ay titres journaux ci réseaux sociaux yi attaqué ay journalistes waa coordination des associations de presse ñu ngi koy ñaawlu. taxawaay bi ñu gis fan yi mooy nit ñuy soppi li nga xam ne moom la taskatu xibaar di di di loo xam ne moom moo leen neex loolu yoon mën koo nangu parce que loolu moom la tubaab di wax désinformation maanaam wax loo xam ne amul. wala wax loo xam ne moom moo la neex parce que la nga xam ne moom moom la taskatu xibaar bi euh, def sa euh, bërëbu yéene kaayam euh, yéene loolu moom noonu la gisee te war nañ ko koo mën a nangul parce que ak lu mënti xew moom moo moo saytu information bi. acteurs yi fas yéene nañu saisir Facebook ngir bloquer compte yi diffuser fausse information yi. am ne moom moo ci am mooy que ne ngeen xam ne tey. kuréel bi ñu jaboote bàyyiwul affaire bi donc ñu ngi koy topp ak euh, ñi nga xam moom la dal seen kaw te nañ ko topp ba mu sës si wàllu si wàllu yoon. Euh, waa coordination des associations de presse. ñu ngi woo citoyen nañu respecté ligne éditoriale journaux yi. Hadj Mansour mu doon phénomène bu bees quotidien day xëy bind la la neexul nga jël une ba taf ko ci réseaux bind ci yow la neex mu mel ni kon ba ñu saisir justice la arrestation yi tàmbali déjà phénomène bi ni mel nga ko jàngatee. dafa ay sanctions yu mhm. dafa war am ay sanctions yu diis. Mhm. Euh, média dafa am solo. Mhm. ci askan. média dafa am rôle bu am solo bu muy joué. Euh, te jamono ju nekk dafay am média yoo xam ne dafa xew. mënuñoo fexe ba tey am na ñoo xam ni ñu ngi joxe information bu crédible awale ko ci Facebook wala ñu awale ko ci YouTube. Hmm. wala ñu am seen i façon seen façon chaîne yoo xam ne ñu ngi liggéey liggéey bu méngoog li askan wi bëgg. Hmm. Mohamed maa ngi yow ba ñu toogee fi ba léegi li ñuy def nii ci liggéey la mais wax dong la. Hmm. parce que même yàlla sax. pour ñu comprendre xam kan mooy yàlla wala kan mooy yonent bi wala lan moo ñu wax lépp ci bind la. Mhm. cest à xibaar dafa am solo. Mhm. léegi nag ci xibaar yooyu ci dundu askan wi li nga xam ni affaire cité bi la moom la ñu bokk. Mhm. moom la ñu ni nii la koy traité dafa am ñenn ñu ci spécialisé wu di ci liggéey am ay ay ay outils de travail am ay entreprises yu ci liggéey muy média. mais ñooñu bu fekkee am na ay nit yu mal intentionné am ay par parloo ci wàllu politique nga xam ni li ñuy def lépp ay détails la bëgg a jël seen ay seen ay journaux. Euh, dindi yow li la li liñ ci def. Mhm. kii liggéey li mu ci def yow def ci loolu la neex loolu dafa laaj ay sanctions loolu loolu tricage la. Mhm. loolu trahison la. <laughs> loolu wax bu bon a bon la. dañ ne dafa am ay sanctions. Mhm. non seulement euh, ñu demandé Facebook. mu dindi ko mais ñoom kay gëm nga sa bopp. mais waneel sa bopp def sa benn jàngat weddi li journal bi wax wala nga jàngat li journal bi wax bu fekkee da nga def contre-pied nga gis ko neneen. nga waneel sa bopp comme ni ko ñi ni ko ñëpp di defee. nga nekk benn chroniqueur ci sa page bopp li buggaan di wax chaque jour nii léegi kenn ku nekk chef d'édition nga mhm. kenn ku nekk euh, yaa yor sa ligne éditoriale bopp parce que am nga sa page Facebook boo xam ni lu la neex nga ci bind bu fekkee nag waxu nit la laa wax mhm. bu du waxu nit yi nga xam dëkk bi am na yoon loolu nag mënuñu ko bàyyi mu continuer mhm. mais toujours justice yu mel nii bu ci defee liggéeyam dafa di collaborer tey informé waa Simpix waa correct di leen wax ñi ñu arrêté ñi fi fan la toll. Hmm. di leen wax ñi ñu arrêté itam lan mooy seen identité ñooñu ñooy ñan. Hmm. lan moo nekk ci seen ginnaaw kan moo leen ko defloo yan jumtukaay lañ ko doon defee ku nekk am nga sañ-sañu bépp presse boo gis muy liggéey. am na fu mu féete mhm. soit mu féete ak askan wi soit mu am faneen fu mu féete boo mhm. féete ak askan wi nag yow assumeel doo am koom doo bari ñu la bëgg mais mhm. assume tes responsabilités te képp ku defu lu dul loolu nga dénoncé ko ñii dafa laaj ay sanctions mais ñoom itam faaw ñu xamal leen ni li ngeen def du yëfi nit li yàlla wax ci alxuraan rek in jaakum faasix bi naba fa tabayyanu an tusibu xawman bi jahala fa tusbihu ala ma faaltum naadimin loolu mooy éthique mooy déontologique boo déggee xibaar ci Mouhamed Diop na nga ko yundulu boo ko deful di gaañ Mouhamed Diop ci lu mu te même yow boo ko yëgee di nga mujj rëccu yow li nga def. Mhm. loolu mooy information kenn amul sañ-sañu gaañ ka ca des te lii ñuy def ñoom yëfi tricherie la tricage la mhm. ba noppi ñu ngi gaañ ñi nga xam ne tasum xibaar moo nekk seen métier. absolument ñu wax ci Prodaf Haj Mansour di ab agence bu communication bi nga xam ne euh, sunu naataango bi di ay euh, Aïssatou Diop Fall di journaliste moom moo ko daal di lancé agence la nga xam ne dafay développé ay produits yu ci euh, bari bari benn yu ci njëkk ñu xam ko moo di sama bataaxal di émission bu nga xam ne. dafay woo yeneen journaliste ci yeneen organe ñu jàkkaarloo invité bi euh, waxtaan ak moom ci wàllug euh, euh, lii xew ci réew mi waaye itam boobu émission lu ci njëkk sax daw na fii ci Sen TV ñu teewlu ci ay Diop Fall